nekk ne mooy nga wul ak ñun ñu gis ak liñ min bu bëgg mais décision bi ñu bis sénégalais yëpp ci lañu ñu ànd boo ko dégloo di nga ko dégg boo ko seetloo te ku gis xam na ne am na attaque yu ñu préparé jëmale ko ci école maintenant nag am na ñu muy déranger am na ñu muy déranger parce que ñu bëggoon utiliser école bi bu ñu leen jàppee ñu ne non ay jàngalekat la ñu nañ leen bàyyi fi ñu toll nii de kenn du wax ne dama jàngale ji woon ñu jàpp ma ndax école yi dañoo tëj alors monsieur le ministre euh, yaay euh, congé yi vacances yi li tax mu indi coow. Ah. mooy dafa am ci contexte boo xam ne wax nga ko dañu jëm ci procès. procès entre Mame Mbaye ak Ousmane Sonko et partout ñu ñu jot a dalal sur les plateaux lépp li ñuy wax mooy c'est un procès entre deux citoyens sénégalais ah. maanaam politique amu ci yoonu euh, politique dugg ci ni ngeen koy clamer au et fort que c'est un citoyen entre deux c'est un procès entre deux citoyens sénégalais su fekkoon noonu noonu la amee est-ce que jaroon na ñuy def anticipation quand même des des congés des vacances. Euh, li nga wax yëpp dé déggoo nañ ci ah que entre ñaari citoyen la. ñoom ngeen koy waxee est-ce que noonu la amee. Euh, yow boo gisee leneen nga wax ma comme sànq ba léegi ñu ngeen yéen a ngi may ne lii ngeen gis yow lan nga gis damaa bëgg nga wax ma lan nga gis taxaw wax ci rajo bi. ne kii moo def lii lii def na def na lii def na lii def na lii mu ne la léegi nañ dem ci nguur nga wane ko moom am na doom am na njaboot am na ay xarit ñu jiiñ ko xaw ma ndax dëgg la am du dëgg mais mu taxaw ne nañ dem ci nguur nga wane ne yow lii nga ma jiiñ am ko foo ko teg nga ne ma man yore naa preuve ñu leen demal ci nguur nga ne man bu ma demee dinaa wane preuve mooy yow sa bopp xam nga ne da yoon moo war a àtte moo leen war a àtte yéen ñaar Sénégal fii nu muy doxe ñaari nit bu ñuy xeex mbaa bu ñu déggowul dañ leen war a àtte atle bi àtte bi mun na noog doon ci masla ñu maslaa xool mbokk baalante àq mën na nekk mais bu ñu la baalee àq tamit day fekk ne yow nga nangu ne ñu bàllaaq te li nga def fekk ne li nga ko defoon ba nga koy def yow da ngaa juum mais boo tooñee ñu ne la li nga tooñ déedéet amul kenn wax parce que maam Mbaye Niang li ngeen di wax c'est pas la première fois mu porté plainte ci effet bi c'est pas la première fois am na ku ko waxoon ay journalistes yu ko waxoon mu porté leen plainte ñu dem tribunal coow li bariwul woon de te ñooñu kon dam ne nañ leen keneen waxaat ko mu porté ko plainte coow lu bari. am na ñu ko wax également te porte wu leen plainte. waaw xam nga pour prendre le cas de Birahim Seck. Euh, xam nga euh, Birahim Seck kan la ko waxee ak naka la ko waxee xam nga am na ñu nga xam ne dañuy wut ceew dañuy wut. waxu Birahim Seck donc pour booy kalaame da ngay xool ci nit ki daal. maanaam fan la ko waxee nit ki ku nga xam ne ndax crédible na ak crédibleul. ah waaw. pour dire quoi. non xam nga man prenons par exemple yow soo nekkee ci sa kër gi. nga romb euh, ci buntu kër gi am na ñu nga xam ne bu ñuy wax xam nañ li ñuy wax. am na ñu nga xam ne ci mbedd mi la ñuy nekk rek ci waxu mbedd la ñuy nekk xam nga ñooñu duñ la sonal. Birahim Seck déggoo ko fenn ci Sénégal lu dul waxu mbedd. ah oui non fan nga ko dégg feneen. mos nga gis rek ñu ne la association ngi def nii liggéey. Birame Seck jiite forum civil. non di wax au nom du du forum civil. di wax ci deniers yi di wax xalaatam ci lépp loo xamante ne am na ci réew mi. xam nga man jàppee ko waxu mbedd monsieur le ministre. xam nga xam nga fii Sénégal ñun ñëpp ñu fi dëkk. ñun fii yëpp fi lañ dëkk. bu fekkee da ngay wax di ne lii baax nag baaxul. am na jarul. ngay woote wu dina da ngay wut association bu nga xam ne am na lu fi nekk am na ñu fi taxaw ñu bëri di fi nekk di ci wax am na ay association di liggéey mais liggéey damay wax rek lii baaxul lii baaxul ak fépp fu mu am xam nga war na ngeen fi léegi Amnesty International ñuy wax bu ñu waxee ñu wax France wax nañu démb ñu ne leen li ngeen wax du dëgg mais ku nga xam ne yow sa liggéey sa liggéey ci wax ne fii dafa am problème bu problème amul amoo liggéey mais mais xam nga kuréel yi ngeen di jàmbat yëpp euh, euh, euh, allez-y allez-y forum civil waxam yëpp mooy de problème am na nañu wax nañu wax ci problème bi day toog ba xaar gis nga ko muy liggéey rek pour ba dara du am da ngay dégg problème am na rek ñu ne la ñu ngi xaar Alioune Tine non ñu yore alalu réew mi fii xam nga si Sénégal vraiment système démocratique moo fi nekk république lañu nekk da nga boo bëggee réew mi da ngay dem politique dem wax ak sénégalais yi ñu voté ñu ñëw voté ku gën a bëri doole ñu jox la réew mi nga géré ko. mais mais mais monsieur le ministre réew. non réew réew dafay am ay organisation ci fànn bu nekk vous pouvez pas quand même euh, que ku war a wax rek c'est parce que da nga am un parti politique non organisation xam nga oui euh, forum civil est une organisation sànq yaa ngi wax Amnesty International Sénégal entre autres quand même yoo xam ne am nañu kàddu et pourtant nangul ngeen leen ko woon avant ngeen di nekkoon ci pouvoir bi ngeen nekk opposition xam nga danga nga ne réew dafa war a am mooy ñooñu ci réew mi lañu ñu war a bokk ci lañu war a sosoo ñu gis leen seen taxawaay ci réew mi li ñuy déglu li leen soxal ak li ñuy wax mooy li xew ci réew mi bu ñuy wax intérêt waa réew mi mooy tax ñu wax leen mais boo fekkee Birahim Seck oto bu ngand lay dawal 4 x lay dawal gisoo sénégalais bu muy jël eh, eh, eh, oui ça n'a rien à voir non non attends rek damay wax rek xam nga yéen ba léegi parce que parce que monsieur le ministre mu mu dénoncé tey jii ay scandale ay scandale à plusieurs milliards Euh, di ko di joxoñ baaraamu tuuma ay ministre di joxoñ baaraamu tuuma yi nekk ci gouvernement bi euh, je pense que kooku bu doon waxu mbedd tey jii euh, ñi muy joxoñ doon nañ jóg arrêté ko depuis très longtemps xam nga lu tax ma lay wax waxu mbedd la bu fekkee dangay ngay défendre république hmm. nit taxaw fii Sénégal wax ci xalif généraux yi lu baaxul saaga force de défense et de sécurité sunu armée bi ñuy défendre saaga magistrat yi saaga ñëpp nga ne yow société civile nga bokkoo fenn musuñu la dégg nga wax ci loolu musuñu la dégg nga wax ci loolu bu ñu la déggee nga wax rek dafa am kenn ku nga xam ne am na fu mu féete am na problème yu nal dal ci moom ci lu mu def nga wax dootoo société civile da nga am foo far fii Sénégal nit munu fi def lu gën a bon ŋaññ suñuy tarixa nit munu fi def lu gën a bon ŋaññ suñuy xalif généro nit munu fi def lu gën a bon saaga li nga xam ne bànkaas yi nga xam ne moom la ñuy dundee yow nga ne société civile nga doo ci wax doo ci ŋaan doo ci yàbbi mais yow ku nekk au pouvoir rek nga xeex ak moom ba pare te yow li ngay wax taxawee woo ko ñu jël benn par benn yéen leen fi indi man bu doon loolu duma leen wax parce que ñoom ñëpp dama leen xam di wax ak ñoom ci mbedd mi di wax ak ñoom ñuy dégg bokkul ak li ñuy wax li may wax ak ñoom duñ ko wax ci biir. mais nag ñoom loolu yàgg nañ ko dégg de. loolu bii nii régime bu ñëw rek danga naan société far dañoo wax nañu rendre compte. Birame Seck na rendre compte ci li muy gérer mos nga ko dégg. na rendre compte ci li muy gérer. organisation non gouvernementale non non organisation non gouvernementale da ngay rendre compte. parce que du alalam lay gérer na ko rendre compte. Alioune Tine wax troisième mandat. na wax ñaata mandat la amoon RADDHO. naka la changé texte RADDHO pour am plusieurs mandats. moom weddiwul bañul ay mandats yu bari. parce que système démocratique yëpp ñoo koy nangu mun nañ mun nañ ko nangu mbaa ñu bañ ko. gis nga fii. tey wax ji ku wax sénégalais yi xam fan nga bokk. mais mais monsieur man bu ma waxee ñu xam ne ci pouvoir laa bokk. am na ñeneen ñu nga xam ne dañoo jege pouvoir bi du ñuy politicien bu ñu waxee ñu xam ne ne pouvoir la ñu bokk la ñu jege ñoom lañu ñu ñooñu la ñu àndal. ku fi bokk opposition tamit munoo ndax kenn boo waxee ñu xam ne opposition nga bokk mbaa opposition.